hello mega mi sami c'est Rita Paradis Masai Ba Lago Farmaren qui est là parmi nous yéen a ngi ànd ak suñu people TV ci ay chroniqueur Rita kom nu mu koy defee saa su ne ah hmm. xale yi jigéen yi balaa maa dee nga am sa jëkkëru nit ku ñuul ku am xaalis wala sa tubaab bu am xaalis mu financé la au lieu nga investir doo investir nga dem jël sa xaalis di ko pasar pasaree di battre ah ak di ko pasar pasare yow boo doon yeewu fajar di guddee wàcc di nga jël sa xaalis di ko pasar pasare bu sa xaalis jeexee nga toog nag di bëgg a rey nit ñi plateau nga toog fanaan waaye tu sais quand j'avais l'argent ah maintenant quand je pars les gens les gens ils me répondent boo yoratul duuli mbaam kenn du la faale Sénégal fii boo yoree boo yoratoo bu yóbboo nga xam ne kenn du la ubbil seeni bunt yàqati bu laanaa boo yoree sa xaalis doo ci investir denc ka waaye mën a yàq mën a pasar pasaree di jaay maanaa di yàq seen xaalis pasar pasare ko ba mu jeex nga fu ne nga toog fa naan waaye quand j'avais l'argent ah nit ñi nii lañ ma doon toppee waaye léegi yoratul boo yoratul duli mbaam da ngay toog bu sàndaa jeexee da ngay jéem a dem rooti jiwaat wala nga toog fii boo yoree boo yoratoo da ngay toog nga may nit ñi jàmm mais yor sa làmmeñ di wax naan ba ma amee xaalis yow ba nga amee xaalis ba nga amee xaalis investiroo ci yaa jël sa xaalis yàq ko xaalis du wax sa xaalis boo ko jëlee nga denc ko foo ko denc kenn du mën ne xaalis baa ngi nii bu ngeen yoree xaalis di tiitaru jaay maanaa te duuli mbaam yoru leen ko yow xaalis buñ la financé kala ka financé day teel a xëy guddee wàcc bu la ko joxee doo jël xaalis ba nga investir ah waaye da ngay jël xaalis ba di baatare topp buwaat yeeg toppa musiciens yi di baatare toppa restaurant yi ba sax xaalis yoratoo duuli mbaam nga bëgg sonal nit ñi fu nekk nga toog fanaan waaye ba ma amee xaalis ba ma duulee ba ma daye e eh, ala kama sa ala naxira atoy sa sawali bref yow yor sab xaalis investiroo jëndoo ci kër defoo ko ci lu am fulla nga jël naan da ngay jaay puukare di maye gis nga nit ñi fii boo yore sa xaalis ñu mel ni maa nga bu gis weñ topp boo demee ba yoratoo buntu boo fëgg ñu tëj ko kenn du la seeni bunt ku lay ubbil seeni bunt ño boo yoree ba yoratoo ku lay ubbil ay buntam ah jëm leen a yeewu te muus jël sa xaalis pasar pasaree ko bu jeexee ngay rey nit ñeeg wax ju bëri di lay làmmeñ bu rëy jaay làmmeñ bu rey naan ba ma yoree xaalis tu sais quand j'avais l'argent et les gens dugg na fii génn na fii di soxo bi soxo bi làkki tubaab dem leen ngeen toog wala ngeen dem rootiwaat bu ngeen feesalee ngeen ñëwaat ah doy na